الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala toll ba tey ci suratu maida ñuy jël tey aaya 12 mu nekk benn aaya bunu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy alxas alal wafaa'i biltizamat alsharciya sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi ñuy soññ di ñu ñaax alal wafaa'i pour nu mën a matal lan la nuy matal biltizamat alsharciya ak tey sharia yi nga xam ne moo tegu sunu kaw sunu borom daf nuy woo di nu soññ pour ñu respecter ko pour nu matal ko xam ngeen ne sharia aw dundin la bi doomu aadama bi ne man gëm naa yàlla la yàlla gàll ci yow aw dundin yàlla rëddal la aw yoon woo xam ne ci nga war a jaar yàlla tëralal la ay atte yoo xam ne moom nga war a atte woo loolu mooy al iltizaamaat ay mbir la yoo xam ne da nga war a engagé wu pour def ko ci sa dund parce que yow yaa wax ne jullit nga yow yaa wax ne gëm nga yàlla muhammad mooy sa yonent sallallahu alayhi wa sallam islaam mooy sa diine alquran mooy sa téere bi nga waxee loolu la yàlla gàll ci yow aw dundin woo war a dund aw doxalin woo war a doxale mbir yooyu nag léeg-léeg am ku ci góorgóorlu léeg-léeg am kuy jéem léeg-léeg am ku bëgg léeg-léeg am ku tële ñooñu ñëpp nag la borom bi ànd soññu leen ne leen da ngeen a waxanteeg man ay mbir yoo xamante ne pour ma nangul leen mbir yooyu foog ngeen engagé wu pour def ko ñaareel bi mbokk yi mooy ibtaal istigrab wastizaami man yastagribu min al yahud makrihim wa naqdihim wa xubsihim wa yastazim zalika minhum dinañ jàng tey sunu borom di dàq di bañ ci ñun ñu yéemu ak di rëyal doole yahuud yi léeg-léeg nga dégg ci dëkk bi ku ne américains yi ñoo bari doole léeg-léeg nga dégg ku leen yéem seen nangam seen nangam yahud yi seen nangam di yéemu ci seen mbir ak di leen ngandal xanaa xamuloo ne ñaari mbër bu ñuy bëree benn mbër bi summeeku rek beneen mbër bi daan na sii kii ngande na de daan nañ ko daan nañ la ba pare yow sunu borom nag def nuy tere nuy ngandal doole yi noonu yi ndax mbir mi du doole dinaa ci joxe benn xissa boo xam ne dinañu won ñun ñëpp mbir mi du doole du ay arme du ay ngànnaay du doolay yaram du doolay xel du kàttani pexe waaye mbir mi yàlla la mbokk yi firawna lan la ko yàlla ak lagee dama leen di laaj firawna lan la ko yàlla labale du ngeen tontu ci ndox la ko yàlla labal pourtant ci ndox moomu yàlla labal ko yàlla ci la teg Moussa mu nekk liir mu tax liir bi labul liir bi léegi la judd yàlla ne yaayam defaral benn boîte nga teg ko ci boîte bi nga sànni ko ci biir géej ndox mi lab na est-ce que lab na ah lu tax labul kële ponkal la ànd ak armeem ànd ak lépp ñoom ñëpp yàlla nee na ma jàpp leen wa nabasnahum fil yammi ndox liir bi lawul lan la xel nangu kan ma waroon lab ah ku waroon lab liir bi lu tax liir bi lawul kon mbir mi am na kenn yàlla la kon du doole bu doon doole kese la waxuma la firawna moom kese rek waaye xoolal armée bi nekk ci ginnaawam waxuma la moom mais ñoom ñëpp la yàlla jàpp labal leen kon mbir mi du doole kon mbir mi yàlla ab julit lenn waru rëy ci kanamam ku dul yàlla yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla juróomi yoon naan ko allahu akbar nooy waxee allahu akbar ba pare nan lay bokkee ci sa aqida fawqa kullu azim aw fawqa kullu qudra qudratullah ba pare ngay yiim keneen yow gëm nga ne ku am kàttan ku ne yàlla moo la ëpp kàttan wala wala wala nooy gëmee loolu ba pare gëm fii di keneen koo xamante ne am na doole kon yàlla def nuy tere mbokk yi ñuy waaru ak di jommi jommilu ak di yiimu ci dooley noonu wala ay pexeem yàlla def ñu koy tere yàlla def ñuy tere ñuy màggal lu dul moom nanu xam ne ki màgg am doole yi di borom kàttan te lu mu bëgg mu am mooy yàlla te lépp lu am ci sunu dund nanu xam ne du kenn yàllaa de lépp lu am ci sunu dund yàlla léeg-léeg nga dégg ku ne mbokk mi de gaa yi rey nañ ko waaye nag dafa juum quoi ndax ni mu daawaa du noonu noonu la de yow mii di wax yow yaa juum parce que yow da nga ragal dee léeg-léeg nga dégg ñu ne mbokk bi de gars yi jàpp nañ ko mais munoon na na bu defoon nangam kenn du ko tëj yow mii yow yaa juum parce que ñun sunu dund daf cee bokk tëj ak rey daf cee bokk loolu dañ ko war a sóoraale ci sunu dund mission la yàlla bu rëddee ci sa jëb yi da nga war a dugg kaso kenn mënu fexe doo dugg yàlla bu rëddee ne da nga war a dee da nga war a shahid kenn mënu fexe doo dee ba pare sax li doy waar mooy yàlla wax na ci alquran wa yattaxisu minkum shuhada fokk ay nit dee ci yoon wi fokk ay nit dee ci yoon wi parce que loolu la yàlla wax am na ñu yàlla tànn ñoo xam ne ñoo war a dee ci yoon wi parce que yàlla moo leen programme dañoo war a dee ci yoon wi kon yow mi ragal bul weddi bul critiquer ñële yow yaa ragal rek nun ni ragal warunoo critiquer keneen ku ci dee wala keneen kuñ ci tëj et puis li gën a neex ci àll mën a fen waay fen rek laay def ak maa mën a fen ñaanal ma chaque jour kay ndeysaan ndeke dafa xaw a am problème affaire bi ma jaaxalee laal ñu ne ma fan yi dafa xaw a feebar xaw ma fa may rab xaw ma la mu demee noonu daal mais lu doy waar la may wax ndeysaan lan moo tax léegi ñuy jaamu yàlla ba pare yooyu yëpp duñ dal ça veut dire que ni ñu koy defee moo baaxul te yii dafa ñëw pour mottali nit pour jëbal doomu aadama pour teg ko ci raaya bi ñeenteel mooy wujub taazimu rasul mbokk yi ñun ñëpp moo war ci ñun màggal yonent bi Sénégal dara alagu leen lu dul yonent bi lañ mujjal ginnaaw d'accord ngeen fii di nga dégg ñuy défendre lu ne ba mu des yonent bi kër goo fi laal nit koo fi laal suba nga gis jaas yi jóg waaye boo waxee yàlla wala nga wax islaam wala nga wax yonent bi kenn du la faale te loolu du jul loolu du islaam jullit yonent bi dafa war a rëy ci moom waaw su yonent bi réyul ci yow rek mooy amoo diine lan la yonent bi waxoon Umar wallahi laa yu'min walla ko yonent bi waxoon giñ naa ci sama màggaay kenn ci yéen dugam yàlla hatta ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wa naas ajmain lu dul man ngay gën a bëgg say doom sa famille ak nit ñëpp man ngay gën a bëgg man yonent alquran ne ñu annabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi moo leen war a gënal seen bopp yéen ñii waaw léegi nag ñun ñeneen waxuma sax sunu bopp mais ñeneen moo nu gënal yonent bi allahu akbar waaw moo tax amul ngëm sunu ngëm mun te dem sax xamuñu yonent te loolu dafa war wujub la gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko yoral ay àq loolu ku nekk da nga ko war a bind ci fooy taf ko ci sa fane sa sa sa bopp lal àq yi nga yoral yonent bi yooyu àq yëpp farata la boo ci bàyyi rek safara nga jëm ay àq la yu ñu yoreel yonent ay àq ay bor yu ñu ko yoreel yoo xam ne fal force la soo neexee bu la naqaree li yonent bee ko moom da nga ko war léegi nag yooyu boo ko xamul da ngay def loo neex dana war a bëgg yonent bi màggal ko dimbali ko xeetam ak diineem parce que ci lañ bokk ci xeetam te mbokk yi loolu gars yi di tiitaroo ku nekk naan man kër diw laa bokk kër diw laa bokk loolu fii ci àdduna rek la waaye ëllëg àllaaxira kenn ku nekk ci ñun bu ñu la ne woon foo bëgg a bokk yonent bi ne tëll looy wax ki nga doon tiitaroo da nga koy bàyyi daal ne man ci yo- kër yonent bi laa bëgg a bokk ndax loolu ñuy tiitaroo fii la yem ci àdduna kër yonent bi donc mooy continuer amul keneen beneen kër buy dem kër yëpp fii la yem ndax day màbb sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dafa war ci ñun loolu aaya yi dinañ ko jàng mbokk yi tey ne màggal yonent bi dafa war wujub li anna maqaamu rusul sharaf màggaayu yonent bi dafa tedd wa kayfa wa hum rusulullahi taala waaw ñoom ñooy ndawi yàlla yi mbokk yi fii nu toog tey jii di jàng suñ jékki-jékki waroon benn motard gaare fii ab gendarme war ci ñëw indi benn lettre wala mu ànd ak kenn daan ne man ndaw laa ci président laa jógee kooku day rëy ci ñun wala day tuuti ah su fekkoon ne ci xalifa si benn xalifa général la jógee nag wàcc ci benn kii gaa yi wër ko mu ñëw ne ci benn xalifa bi ma yónni day rëy wala day tuuti ku jóge ci yàlla nag kon kooku nan la war a toll ku jóge ci yàlla naka la war a toll ci ñun ñii ñoom la yàlla tànn ñu bàyyeekoo ci moom direct ñëw ci ñun kon dañoo war a rëy ci ñun suñuy bët summa lawla wujubu zalika lahum maa wujubi mahabbatihim lamma ataathum su fekkonte ne du yàlla waral gi mu waral ne ñun danoo war a topp yonent yooyu dan leen a war a bëgg kon duñ leen topp waaye yàlla moo waral ci sunu kaw ne danoo war a topp yonent bi ak yonent yi loolu fard la ndax moom moo leen tànn yónni ko ci ñun yàlla wax nu ko muy lu leer kon dañ leen war a màggal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk yi ci tënk bu gàtt ñeenti tomb yi mooy lu ñuy jëlee ci sunu benn aaya bi nu naan sunu borom subhanahu wa taala yal na yàlla dëgëral sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنتي عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد دل سواء السبيل سنو برمني جل جلاله walaqad wallahi giñ naa ci sama màggaay man borom bi tabaraka wa taala maay waat di wax ak yéen lu waral loolu mooy sunu borom ginnaaw ba mu waxeeg way gëm yàlla yi ci ñu matal dig gu ñu wax ak ñoom ak la ñu engagé woon te muy kóllëre ginnaaw loolu wax na waa banu israil pour wan jullit ñi démb banu israil lan waxoon ak moom niñ ko feccee mu ne walaqad giñ naa man yàlla axasa allahu man yàlla maa jàppoon maa waxante woon misaaqa dikk bani israil xeet woowu ñu naan doomu yahud al misaaq al ahd al muakkad bil iman mooy dig mooy pacte boo xam ne dañ ko rëdd wax ko ba pare feddali ko ci ngëm yàlla loolu mooy al ahd al misaaq mooy contrat boo xamante ne ngëm lañ ko signé yàlla moo wax jullit bi wuyu si daal di nangu li yàlla wax yàlla nag ne pacte boobu mu waxante woon ak waa banu israil ne leen mbir mii na ngeen ko def mu ne wa baas naa ma yónni minhum ci ñoom isnay achara naqiba fukk ak nit ak ñaar ci ñu ñu tànn ci kuréel yi nga xam ne ñoo waroon Muusa muy fukki kuréel ak ñaar naqib mooy ku ñu tànn ci biiri nit nga gën a baax ca nit ña gën cee yiw ñu def la njiit ca nit ñoo ñu jiital leen ngay nemmeeku seeni mbir di leen surveiller ak di leen inspecter loolu mooy naqib yàlla subhanahu wa taala pacte bi def ko signé waa banu Israël dañoo waroon xeexi ak ay nit yoo xamante ne ñu ngi dëkk dëkk bu tudd kanaan ña fa dëkkoo nekk al kanaani yiin loolu nag ma nga woon ca Palestine yàlla ne Moussa balaa ñuy dem nag ma tànnal fukki nit ak ñaar ci fukki kuréel ak ñaar giir yi la topp xeet yi Moussa daal di tànn fukki nit ak ñaar ne leen dem leen ñu dem yàlla daal leen di natt ci yenn tafsir yi lu ñu wax am na ñu wéral loolu am na ñu ko dax almuhim ñenn ñi ne nañ dañu ne tëll rek gis benn waay boo xam ne ne njoolaay bi bi mu taxawee dafa bopp bi daa dugg ci biir niir yi ndax njool waa jooju ndax njoolaayam ak ngandaayam mu ne cas benn pooju yàpp rek ne ko nii ci jant bi mu ñor mu daal koy lekk xam nga ngay nga bëgg a xeex ak nit ñu ne dama nga xooli ko nga ñëw gën a gis loolu nooy da mooy li ma waxoon sànq ñu ñëwaat rek daal di décourager peuple bi almuhim mooy ñoom ña demoon biñ demee daal biñ ñëwee lanu nettaliwaat tax na peuple bi découragé te ñoom dañ leen tànnoon am ci ñoom yaakaar am ci ñoom kóolute moo tax ñoom ñëpp alko ba mu des ñaari nit fukki ñi dañoo alko bañ ñëwee au lieu ñu wax xeet wi luy dalal seen xel ay ñu dem na ñun de ay ponkal lañ fa fekk ñii de bu yeboo nu toog bu nuy dem nu nuy rey ñu découragé xeet wa wax leneen lu wuuteeg lan leen yaakaare woon ndeysaan loolu la nu sunu borom di nettali ci aaya bi mu ne diggoogu ma leen waxoon man yàlla ñoom waa banu israil wa baas naa minhum yónni naa ci ñoom isnay asara naqib fukki nit ak ñaar ñooñu nga xam ne ñooñ lañu tànnoon ñuy ay njiit ñu amoon ci ñoom kóolute ñu ne leen dem leen ngeen xooli gaa yooyu ngeen di xeexal mu ne ñii naqib yi min kulli qabila min qabailihim al isnay asara qabila dañ leen a tànn génne leen ci fukki giir yi nga xam ne ñoom ñoo toppoon yonent yàlla Muusa naqiban yaraahum ñoom bañ leen tànnee ñoom ñoo doon sàmm nit ña ñoom ñoo doon xool mbiri nit ñi ci biir ak ci biti ñu def leen ay njiit ka rais fihim ñu ne leen yéen fi ngeen génnee yéen yéenay njiitu ñooñu loolu nag daf leen di jàngal ne nit ñi bu ñuy bu ñuy ànd di liggéey lu ñu mën a def il faut am ñuy ñëw di fekkee dem di joxe information ñeneen ñi maanaa tey dëkk bi bu ñu doon liggéey ñëpp duñ bokk rek nekkandoo ci benn mbooloo di ci liggéey noonu noonu ñëpp nekk ñi ñëpp nekk amir wala ñëpp nekk nangam ñëpp nekk nangam non non dafa am ñoo xamante ne dañ leen di tànn ñu bàyyi koo fenn ñëw fekkee après bu ñu fa jógee dem waxi jiwaat même njàng sax loolu la ci yàlla wax soo demee nga jàngee nga ñëwaat nga delluwaat ci say mbokk waar leen maanaam liggéey dañ ko war a organiser liggéey dafa war a nosewu loolu la nu yàlla di jàngal fu nekk beneen bi mooy mbir mooy dugg balaa nga cee dugg war ngaa laajte ji war nga koo xool war nga koo xalaat war nga def ay étude fii rek ngay gis ci dëkk bi rek ngay gis gars yi di dugg ci ay nangam nangam ñëw rek samp dara looy def damay def dara amul étude amul dara moo tax du dem ñetti fan nga ñëw ana waa ji ñu ne affaire bi daanu na c'est parce que moom ba mu koy def càmbaru ko xoolu ko xamul lii lan la tey ci Sénégal benn waaye bu ne woon damay commerce damay jaay ay gëléem ak damay jaay ay nag ak ay xar kan mooy njëkk a jaral yi jaay xar yeeg nag yi parce que fii ñun li ñu xam mooy da nga xar rek xew boo am looy njëkk a jëndi looy njëkk a xalaat mooy xar ak nag léegi bu waa ji demee ne man damay ay gëléem kese laa fi indi parce que gëléem moom xam naa bu ma ko fa jaay na jar parce que fii kenn du fi jaay gëléem baax na at bu nekk de benn gëléem lay jaay parce que xamuñu gëléem moo tax looy dugg ngay def étude yi xool ñii ma koy defal wala ñii ma bëgg a defi nangam wala kii nga xool mbir yi moo tax Moussa balaa muy dem yàlla daf ko tànnloo ne ko tànnal ma tànn indi yàlla mu ne ñooñu dem leen ngeen infiltrer dëkk ba ngeen xool càmbar ngeen xool ñi ngeen war a xeexal ñooñu nu ñu mel lan lan lan lan lan lan yonent bi loolu la daan def da daan yónnee badr dafa yónnee woon waaw noonu la yonent bi daan def balaa muy dugg ci dara def dafay xool moo tax loo gis mooy mbir yëpp di yemb waaye amaa nun dañuy tëñëx tëñëxi rek moo tax ñu am ay problème yu dul jeex Musa alayhi salaam tànn daal di yónni ñooñu wa humu allazina baasahum Musa alayhi salaam ila Falastin mu ne ñii naxiib yi giid yi ñoom la Musa yónne woon ci dëkk boobu tudd Falastin li yataarrafu axwaal alkanaaniyin ngir ñu dem gëstu xool càmbar xew-xew ñii nga xam ne ñoom ñooy waa kanaan qabla qitaalihim balaa ñuy xeex ak ñoom waaye ñii lan la leen yàlla wax sunu boroom subhanahu wa taala ne leen wa qaala allahu inni maakum yàlla ne leen maa ngi ànd ak yéen allahu akbar inni maakum man de yéen la àndal lii rek doyoon na doyoon na ndam waaye yàlla ànd gi mu ànd ak ñoom daf leen ko daf leen ci tegal charte maa ngi ànd ak yéen ci nii nan la in aqamtumu salaata bu ngeen taxawalee julli maanaam feeg yéen ak may jaamu rek maa ngi ànd ak yéen kon loo ciy dégg bu ñu aree bu ñu bu ñu arrêté julli ndax ànd te nañ ak yàlla charte bi dañ na daa jekku na léegi nag su fekkente ne ñii la yàlla wax lii ne leen maa ngi ànd ak yéen la in aqamtumu salaa feeg yéen a ngi taxawal julli ñun fii ñu bëgg a ànd ak yàlla te duñ julli ndax kon yàlla dina ànd ak ñun kon ku bëgg a ànd ak yàlla looy def da ngay jaamu yàlla inni maakum maa ngi ànd ak yéen charte bi mooy lan bu fekkente ne taxawal ngeen julli gi allahu akbar wa izzati wa jalaali giñ naa ci sama màggaay ak sama kattan man yàlla la in aqamtumu salaata wa ataytumu zakata wa amantum bi rusuli su ngeen taxawalee julli joxe azaka ngeen gëm samay yonent ngeen dëggal leen ngeen dimbali leen ah su boobaa day ngeen gañe ngeen am victoire ngeen am ndam kon ndeke balaa ñuy gañe yàlla daf cee teg charte waaw balaa ñoom ñuy am li nu bëgg mooy yàlla charte bi mu ci teg mooy lan bu fekkente ne yéen a ngi julli yéen a ngi joxe azaka ngeen gëm sama yonent wa amantum bi rusuli est-ce que benn yonent rek la leen yàlla wax ah ñaata yonent la yonent yëpp moo tax soo gëmee yonent yëpp benn yonent soo weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp benn yonent boo ko weddee weddi nga ñëpp yonent yëpp lan nu gëmloo waaye bi ñu gëmlee yonent yooyu yëpp dafa am kuñ ñu ci royloo mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñeneen ñi dañ leen di gëm rek duñ leen weddi waaye nag am na luñ leen mën a roy am na luñ leen munta roy amma yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam nag léppam dañ koy roy ndax yàlla moo nu ko sant laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana da ngeen roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ngeen taxawalee julli joxe azaka ngeen gëm samay yonent wa azzartumuhum ngeen dimbali leen kon duñ gëm yonent bi rek tëdd dina la aussi yàlla nee na foog ñu dimbali ko nan la ñuy dimbalee yonent yonent nekkatu fi mooy nu dimbali diineem dimbali sunnaam liñ ci li ci gaa yi yàq gis nga borom xam-xam yi ni ñu koy defee da ngay gis ay téere yu ngand ngand ngand ñu ne téere wax yonent bi moo ko wax borom xam-xam yi ñëw càmbar di dindi di dindi di dindi di dindi mais lii yëpp dara baaxu ci lii la yonent bi wax lii yonent bi wax ci dara jaamu yàlla yi gaa yi ñëw di yàq di yàq ñu ñëw ne la nii la ko yonent bi doon defee ñu ñëw wax ñu ne yow ne la yonent bi lii la wax waxul lii lii la def deful lii kon gaa yaa ngi liggéey dimbali diineem taxaw dimbali sunnaam taxaw dekkilaat sunna yi ñuy rey loolu mooy wa azzartumuhum ngeen dimbali leen dimbali samay yonent waaye nekk complice di rey sunna bàyyi diine ah wa aqradtumullaha ngeen lebal yàlla qardan hasanan lebal bu rafet ndeysaan wa aqridullaha qardan hasanan na ngeen lebal yàlla lebal bu rafet ku déggul ku déggul diine wala amul xam-xam mu dégg mu ne yàlla mu ne na ngeen ma lebal lu muy wax waaw xanaa kon yàlla dafa amul dara bay lépp déedéet test la rek bu la yàlla defal nga li nga yor yàlla mu ne la joxe ko day xool ndax gëm nga wala gëmu joxeel muy xool ndax di nga joxe defal muy xool ndax di nga def bàyyil muy xool ndax di nga bàyyi waaye yàlla liñ yor doye ba ko dërëm lépp loo def lu baax sa bopp nga ko defal in ahsantum ahsantum li anfusikum lépp lu ngeen def ci lu baax seen bopp ngeen ko defal yàlla nee na defalu leen ma ko kon ku def lu baax sa bopp nga ko defal yàlla nag moo nuy wax pour lu baax li nga xam ne moom la ñu yéene ñu joxe pour ñu jox ñu ñu def pour mu defal nu mu ne wa aqartumullaha ngeen lebal yàlla anfaqtum fi sabilihi ngeen génne li ngeen denc joxe ko su boobaa ngeen yaakaar ci moom yàlla subhanahu wa taala mu fay leen la ngeen joxe woon mu ne su ngeen defee lii lépp ma wax man yàlla lan laay def mu ne la ukaffiranna ankum giñ naa laam bi laamul xasam la mooy maa ngi waat danaa sippi danaa suul ankum ci yéen sayyaatikum seen bàkkaar yi ngeen doon def danaa gas ba mu xóot ma suul ko wala bàkkaar yooyu ngeen doon def dinaa ko soppi ma def ko lu rafet loolu mooy la ukaffiranna laam bi ci bopp baat yi waat la nuun gi ci kan binnaaw nuunu tawkiid la dafay feddali dëgëral ne lii yàlla wax dafay am la ukaffiranna ankum sayyi'atikum yàlla nee na bu ngeen jullee joxe azaka gëm sama yonent dimbali leen lebal yàlla ci li ngeen denc seen poos ngeen joxe ko su boobaa day danaa leen jéggal seeni bàkkaar ñaawteef yi ngeen defoon yépp dinaa ko suul dinaa ko effacer dinaa ko dindi ci xel yeeg dënn yi ba kenn dootu ko wax kenn dootu ko xalaat duma ci yem wala udxilannakum dinaa leen dugal jannaatin ay aljanna yoo xam ne tajiri day daw min taxtiha ci suufam al anhaar ay dex kon bu yàlla yemoon ci bu njëkk bi rek doy na dinaa leen jéggal seeni bàkkaar lépp lu ñaaw lu ngeen defoon dinaa ko suul loolu doyoon na waaye yàlla nee na su ngeen ko defee ba pare encore su ma defee loolu ba pare dinaa leen dugal aljanna wala udxilannakum ni mu defaatee woon fee noonu la defaate fi dafa waataat moom yàlla dëgëral ko ne su ngeen defee lii ba ma baal leen dinaa leen dugal aljanna kon la moo fi des ah daal leen bu ngeen defee lii ma defal leen lii lu fi desati jeex na jëfe rek dinaa leen dugal ci aljanna yoo xam ne day daw ci suufam ay dex waaye cey fa man kafara cey ko weddi cey lii ma wax ko ko weddi fa man kafara baada zalika yéen baada zalika ginnaaw lii yàlla wax weddi julli gi weddi azaka gëm yonent yi bañ leen dimbali bañ a joxe yàlla ci alal lii yàlla wax yam nga teg ko fële yàlla mu ne faqat bi na faqat dalla kooku sànku na axtaa bu jub parce que yoon wu jub mooy yoon woo xam ne jaamu yàlla la loolu mooy yoon bu jub ban yoon yuflihu saak saalikuhu yoon woo xamante ne dafay texeloo dafay jubloo borom xoolal tey rek tey li gën a yéeme mooy dañoo nekk ci ay mbooloo